ngir jàppale seen chaîne bi di seen xibaar info bu leen fàtte abonné ak like seen vidéo seen xibaar info l'information en réel. Youssou Ndour dafa taxaw temm ngir dindi gàcce bi nga xamante ne Dame Amar teg na ko ci kaw doomam. ngir fàttali Dame Amar mooy doomu Ahmed Amar boobu nga xamante ne dafa luye woon appartement meublé fële ca Almadies nekk fa ak copinam ak ay groupe xaritam ba kii di Iba Thiam jaaree fa ñàkk bakkanam depuis bi mbir moomu xewee nag Dame Amar nga xam ne moo takkoon doomu Youssou Ndour ma nga fële ca kaso bu ñu sukkandikoo ci kàddu kenn ci ay source Youssou Ndour ci boppam moo dem jëli doomam bi ñuy woowee ndey soxna ca kër Dame Amar ngir génnee ko ci metit yi muy dund ñu bari seetlu nañ ne bi coow li éclaté Youssou Ndour moom kenn déggu ko ci mbir mi dafa ne pat baay ba yëf yi sedd mu daagu ndànk dem jëli doomam source bi yëkkati ay kàddoom ci suñu naataango waa leeral point net yi mi ngi xamle ne liy xew-xew na ba noppi te fulla nag mooy jaay daqaar ndax Youssou Ndour dafa jëli kii di doomam ngir aar ko jàppale ko ndax li mu sonn dafa doy Seynabou Diop pour seen xibaar info